mooy c'est le d'une culture d'une civilisation boo bëggee xamal nit ñi ñaay yaay kan ginnaaw ni ngay solo ak li ngay lekk mooy lan ngay wax ak nan ngay waxe li ngay wax lu tax ñoom tubaab yi ñëw ñii coloniser ñu doon ay anglais ñii colonise ñu doon ay portugais ñii coloniser ñu doon ay français mm-hmm. ba pare arab yi aussi ñëw fi installé fi ay école arabe pour ñun ñuy jàng arab ñuy sol sabandoor di kaalawu culture yi dañu seq ba pare wa à tout point de vue mm-hmm. léegi nag ñu war a góorlu ngir mën a rëcc ci loolu li ñeneen ñi indi baax li ci baax nañ ko téye parce que àdduna aussi ubbeeku la fu julli jóge moowu julli ci jula la jóge jula jula mooy jaaykat bi ci saraxule yi la jóge ah, ah noonu la fi duggee duggewul ci Haalpulaar ci saraxule yi la duggee parce que c'était des jula ils étaient partout ci les soninke et les soninke c'est des cousins des Haalpulaar hmm, oui donc jula ci la julli jóge même en wolof oui làkk bi sa làkk ci ngay làkkatu. oui très bien xam nga maa ngi koy door a découvrir loolu. mais très intéressant hmm. làkkatu si sa làkk parce que effectivement sa sa làkk moo lay set moo lay mooy li lay protéger. période esclavage par exemple. tubaab du boole ñaar ñu déggante làkk. waaw par exemple bëggul ñuy wax loo xam parce que bu ñu waxee dañuy déggoo te dañuy am ay pexe waaw moo tax dañuy séparé dañuy am ay pexe parce que laaxati ngay laaxatu moo tax boo seetee par exemple constitution Sénégal li ñu ciy def ne euh, pour être président du Sénégal il faut savoir lire et écrire en français oui euh, boo amul yenn niveau yi mënoo nekk c'est-à-dire boo paree booy wax booy am na demande yoo xam ni par exemple booy dem préfecture def demande d'autorisation am na si boo ci dugalee benn mot bu ndaw boo xam du français da mën nañu rejeter par exemple gis nga même jumtuwaay yooyu mhm. constitution dafa bëri ay jumtuwaay ba ci sax ay édifice lu mel ni assemblée niñ ko tabaxee pour man assemblée justice yëpp buñ ko doon tabax war nañu inspiré wu ci nan la meloon jamonoy maam penc mi nan la meloon daf ñuy delloo ci sunu bopp mais boo ko ba ci mbaxana yi yi magistrat yi di sol. te oui et ça ne nous correspond pas am na ay affaire yu bëri yoo xamante ni il faut que nit ñi delluwaat delluwaat ci seen bopp mm-hmm. delluwaat ci seen bopp nag lakk bi jàngale bi tey mën nga am doom bu am trois ans quatre ans tu l'envoies à la boutique mu tudd ayda Aïda Talla Aïda damal jënd li ma damal ci boutique bi damal ne Mamadou Mbit boutique na ma jox juróomi dërëmu juróomi dërëmu poobar fukki dërëmu kaani ñetti dërëmu laaj ak ak guro bu fukki dërëm elle a trois ans bu demee day ñëwaat avec li nga ko yónni bu demee école ñu ne ko un plus un plus deux plus trois du ko trouver parce que làkku jàmbur parce que làkku jàmbur transaction bi la waay Mass def na ci benn am na benn passage. bu ci Mass Black Diamond def benn film. Mass dañ ko seeti sax. waay il faut aller am na benn passage bu benn filmam bu doon daw. boo xamante ne gis naa ci affaire bu demee noonu. Hmm. mais dama bëgg ñëw léegi ñu nekk si ñu wax ci bi wax ci nga si sa yow gis-gis on a touché sa jaar-jaar ci Y'en a marre. sa point de xam nga ak euh, ni nekk Y'en a marre lan la Y'en a marre représenté ci hip hop taxawaayam aussi. Hmm. xam nga euh, ci hip hop man waaw. mais man gis naa dégg sa son. waaw non parce que oui xam nga ñun léeg léeg ñu def ay sound mais buñ génnee du siw ni mu daan siwee. ok parce que. <laughs> non parce que boy yi ñoo ñoo def invasion affaire bi boy dañu bëri doole quoi c'est-à-dire ñun li ñuy wax ci ñun li ñuy ñun liñ doon wax ci. ci seize mesures booy dañ koy wax ci ci benn mesure oui ba pare am ay jumtuwaay yoo xamante ne effectivement mm, mm, mm. yoo xamante ne ñun xëy na am na lu ñu jota raw ci affaire bi tuuti quoi est-ce que amul beneen taxawaay bu ngeen war a am a a marre dafa am lu mu liggéey Sénégal lu am doole loo xamante ne même su fekkee kenn mënu ko dindi parce que mën nañ ne révolution man na wax souvent ma ni sax Mm. tey li fi xew nii ñu ko gis ko mooy ay yi nga gis ni ay idéologie gars yi di wax ay patriotes yëpp ma ne lu lu wa lu gars yi capitalisé yaa maar lañ capitalisé foofu noonu. mais Karim xam nga comprendre lu muy expliqué. Karim. Mm-hmm. mais est-ce que suite logique gu affaire yi waroon na demee nii bu fekkoon yàlla ma jël nañ seen responsabilité. non en fait Karim. est-ce que du erreur yi yàlla ma la. non non non bu fekk parce que je me rappelle. oui ñu defee lël Thiès. oui législative yi di jege si. oui dama la ñoom boo xoolee vidéo yi gars yi. dama ne gars yi nañ dem bokk ci nekk ay député assemblée nationale. oui d' accord gars yi bañ. mais waaw waaw waaw na ko ñeneen ak ñeneen woote nañ ko. Mhm. yàlla est ce que waruñu dem ci mais mais oui en fait mais su boobaa. Mhm. ñi bëgg ci Y'en a mën nañ dem defi ko mais bàyyi mouvement bi nekk mouvement. parce que il faut que mu am parce que en fait aujourd'hui ban problème lañ am actuellement on a un problème on les mouvements ont presque disparu lu fi nekk tey nitu dëgg moo fi nekk lu fi nekk tey Y'en a marre moo fi nekk Sénégal aussi dafa soxla ay nit ñoo xamante ne faruñu fenn du moment où dem nga assemblée dugg nga rek da ngay dugg à partir de benn idéologie politique wala de benn gis-gis politique pour aller au parlement dem parlement baax na parce que le fait que ñoom Guy Marius Sagna dem parlement parlement bi am na beneen tax na sénégalais yi gën a xam njëriñu parlement bi mais waru fa yem il faut que ñu am ay instance yoo xamante ne ñenn ñi dañuy am trajectoire citoyenne dem ci parlement bi mais il faut que ñu am encore davantage des personnes yi nga xamante ne féetewuñu ci benn boor féetewuñ ci kujje féetewuñ ci nguur taxaw rek pour di fàttali. mais est-ce que oui non mën na nekk mais xam nga parlement boo ci nekkee mooy tu es dans le système am na loo xamante ne da dina la rëcc forcément avantage bi ngay am en étant en dehors du parlement pour être au fait de ce qui se passe parce que le le, parlement est clivant parlement bi daf lay jox pété loi dina ñëw dootoo xool askan wi parti bi ngay xool wala wala coalition bi nga bokk mais est-ce que loolu est-ce que en réalité loolu un vrai député war na mel noonu. député. mais maanaam un député peut être député. mais oui mais du nekk lu tënku ci parti mais moo taxoon ci parti ko moo taxoon Karim ci. législative boobu Y'en a marre bi muy législative bi ngay wax ni bi ñu amee lël bi Thiès. Mhm. lan la Y'en a woote. lël mhm. Y'en a marre 23 après 23 juin 2012 bi Macky faloo ba pare. Y'en a marre 23 juin 2012 dafa organiser. benn manifestation buntu assemblée nationale ci la ñuy wax le nouveau type de député mooy ban taxawaay une fois que ñu élire le député wal nga jël parti bi teg ko fee. jël askan wi jiital ko sa kanam voilà kon donc ñun dañoo am problème mu au fait. oui parce que nit ñi li leen di yóbbu au départ. loolu bi leen di yóbbu au départ mooy. dañuy redevabilité redevabilité. dañuy naxanteeg askan wi ba askan wi ne ah kii de mat nañu ndaw ca assemblée. dem nekk ndaw keneen. après day dem nekk ndawu parti wala kuréel bi mu bokk il faut qu'on des députés qui ne suivent pas le mot mot d'ordre du chef de leur parti li député yi war a def dañuy xool même bu fekkee chef bi wax na est-ce que am na réellement jeexital